non si même jour bi si même jour bi euh, ki nga xamante ne mooy jëkkëram fekk ma ci kaw ma toog parce que tellement dama angoissé woon mu fekk ma ci kaw ma mu ne ma carrément aji man xam naa nit ku baax la te li tax sax man ma am confiance ne yow nit ku bu baax nga yow danga ñu ko woon fi naa gaawuta am kenn confiance ci moom te yow kese c'est la première fois ak ki fi bañ tëyee bañ tëjee suñu cabine bi ba léegi ça fait trois ans la moo xaw ma quatre ans final mosul am confiance comme ni mu envie di bàyyi këram nii dem jox ko benn xale boo xamante ne bokkuñu dara mu koy liggéeyee du ko weesu xaalis man ne ko te ma waxaat ma ne ko li ma wax tata final rek laa lay waxaat soxlawu ma dërëmu nit mu ne waaye kër gi de mun nga fee toog ba am doom moom tonton Ibrahima mu ma wax loolu mun nga fee toog ba am doom jarul ngay dem seen kër wala yow sax yow nga ne dangay dem sa kër sa kër ñoom yaay kan moo lay yóbbu ma ah man de xamaguma kan moo may yóbbu mais maa ngi woo sama frère bi ba xool parce que jotaguma boobu ba léegi maa ngi koy woo jotuma ko